jéego de mi lu jëwriñ wax nga ne maa ngi tuub de yaay sama jéeg sa mag da nga bàyyi ca kër ga bu ne benn nga def joxoo ko benn wax mbokk yi loolu nañ ko jàng ci suñu saa waa Mbàkke liñ rawee yëpp mooy kilifteef murit yi liñ rawee yëpp mooy kilifteef ëpp gën a néew ci Sénégal waaye lan moo tax seen jëf mooy nan boo ànd loolu muy yëpp loolu moo leen may te pourtant ñoo fi gën a kam min fi atin xalilatin luy dox ak luy yëngu nag daa bokk nañ ko bàyyi xel luy dox mën nga fukki at sa dara du changé sa naan naa fa bàyyi nga fen am nga looy rus bàyyi nga sol ay kilot bàyyi nga sol luy génne sa awra ndax bàyyi ko kon da nga bokk ci luy yëngu waaye luy dox moom bu ci bopp ñetti weer da nga xam am na am na avancement wala te mbokk yi ñoom kilifteef googu war na si tubaab yi kilifteef ba léegi daal alhamdulilah rabbil alamin wala sàllaaw ñaar yi moom miin nañ ko ci ay ay kàddu alhamdulilah rabbil alamin wala sàllaaw lii daal xam nañ ko ci ay kàddu lu dul loolu day digle ba muy teel lu dul loolu kenn du dégg ci gémmañu mu wax sa baat nañ ko ci roy nañ ko ci roy bu baax a baax ku fonkoon ay mbokkam la muy doomi sëñ Tuubaa da leen a fonk loolu nañ ko ci nañ ko ci roy mooy ñi ñu bokkal nañ leen fonk te ni gërëmal Sëñ Tuubaa man nga ko amee sa biir kër sa baay man ngaa am ci moom gërëmal sa mag man ngaa am ci moom gërëmal Sëñ Tuubaa ko rek waa Mbàkke li nga leen di xamee boo ñëwoon ci ab jataay ka ca rek mooy nekk ca kaw ñi si ñëpp ci suuf la loolu mbokk yi mën nañ koo jàng ci ci ci ci ci ci ci kilifteef kon mbokk yi sëñ Saliou daal jëmm la joo xam liñ ci bëgg a waxtaanee lépp xajul ci jataay bi waaye daal ñu xam ni waxtaan bi daal liñ ci jublu mooy ñu gën ko wax liñ ci jublu ñu jànge ci moom luñ ci jublu ndaw ñi xam ni bis ni ki tey am nañ ay modèle modèle bi gën a rëy nag mooy sëñ Saliou ndax ñëpp ñëpp la ci ñëpp la ci te lu bari lu ñuy def ñun sëñ Saliou ñu ci boole kon nit boo ko bëggee da nga koy jéem a rek doo rek ñu wax dafa tas waaye da ngay jéem xool ay melokaanam nga jéem a tënku ci melokaan yooyu xam ne ku fonkoon bàyyam nga fonk sa bàyyi xam ne ku fonkoon ay kilifaam nga fonk ndax baa ngi sëñ Saaliw boo nee day dàq ñu lay ko sëñ Saaliw boo nee sëñ Tuubaa baa ngi sëñ ma dunde baa ngi maam Cheikh Ibrahima Fall dàq ñu lay ko loolu ñëpp xam loolu mën nañ ko cee roy bu baax a baax roy ko ci bëggante kenn ku ne li ngay yéene sa bopp na ko yéene sa bopp lan la waxoon su ma leen oo dinaa leen xaar su ma leen gisul danaa wëlbatikuwaat te su ngeen ñëwul ci yoon yi danaa leen jël si ànd ak yéen waaye fu ma ne fa laay ànd ak yéen mbokk yi loolu ñun tey la ñu intérêt personnel sexually intrageneral intrageneral intrageneral boobu nag moo tax tey yoonu muy am di am tey tey ñaata nit ñoo mokkal alxuraan ñaata nit ñooy borom xam-xam ñaata nit ñooy sëriñ yi daara ñaata nit ñooy ay góor yàlla ku leen defal sëriñ Saliou Mbacke ku leen defal kon yaakaar naa bi gars yi di xëccoo ay usine ak ay industrie moom nit ñi la xëccoo moo tax tey mu am résultat moo tax sëñ Sadio wax na si kon mbokk sama kàddu ci yàlla na ko yàlla fayal maa ngi daaneel sama kàddu ci na ko yàlla gën waaye maa ngi daaneel sama kàddu di dénk man ak mboolem ndaw ñi ñu jéem a roy ci sëñ Sadio nañ ko roy ci xam-xam nañ gàddi xam-xam nañ ko roy ci sutura bu amoon sutura la sëñ Saliou daawul wut ñi secret jaamu léegi nag nit ñaa ngi filmé di jël ay vocal yi jaamul di transfert di wax ak nit def ko mais libre yooyu yëpp bakkaar sëñ Saliou mos ko nañ ko roy ci nangoo liggéey nangoo liggéey am jot nañ ko ak loo xam ne buñ ci jógee ñun danañu dolli jom loolu rek laa ci jublu loolu rek laa ci jublu mag mu am quatre-vingt-dix ans sëñ Sall mi am quatre-vingt-dix la génne vingt-deux milliards jënd ci quatorze tracteurs pour mbay kon loolu xale mu nit bi war na koo roy ci jéem am jom aw baay waaye dem ba am ñeent fukki at fanweeri at ak juróom di xuloo parce la paa bi jëndalu la ay paa bi damaa seetaan paa bi maa ngi nii ay at a ngi nii xott man daa mel ni bopp ma ci kenn mbokk yi loolu kon maa bàyyi xel dem ba am quatre-vingt-douze ans mboolem waa kër Sëñ Tuubaa yaa yor seen dund seen dara ma sama nga gis ndaw loo xam ne kër gi mu dëkk xalaat faa jënd àll àll bu paa lu xam ne baaxul yàlla bu dee dëgg lay man maa amul xam-xam te gàtt àll yi wala néewu gëstu. te am yéene waxtaane ndaw ñi ci li ñuy royee suñu xarit loolu rek moo ci sama jubluwaay maa ngi sant yëpp di gërëm yëpp suñu xarit maa ngi santaat ñëpp di leen gërëm teraange ji ku xool ñaw bi xam ne rafet na lool ku xool yére bi tamit xam ne rafet na lool ba ma dalee teew ci baas ba tey nag maanaam tuddee la bis nga war a jël sa teraanga indi ci bis bi ñi la tuddee bis bi jël seen teraanga ñoom jënd yére bu rafet jox ko téer bu mën a ñaw mu ñaw ko ñaw bu rafet ñu fas yéene koo solal ki ñu tuddee jàng yi sëñ Baye Modou Thiam moo tax na ñépp na bàyyi ñëw taxaw nii bu ko defee sëñ Gouda gen ñëwaale bu ko defee yére bi ndeysaan teraanga la bu waa sopp Serigne Saliou terale jëmm ji bi

Estados Unidos. الجنود bu baax gi ñu jàkkaar te boo xoolee guuda limu sol bu ko solee war na koo sol ndax ñoom ñaar benn lañ genn ruu la koo xam ne day awante rek ci ñaari jëm mooy genn kon Baye Modou nit baax la Baye Modou nit gore la Baye Modou nit ku la man mii barke sëñ Touba mën naa cee doon seede ndax xam naa Sénégal loo wax léegi ñu ne ay dóor la ndax looloo tax tey man ngay wax ci sëñ sooy lu baax baa ngi wax ci Baye Mour lu baax ñu ne daa bëgg ci moom dara déedéet man doon naa ci seede ma kër sëy bu ñu ma xamee moo tax safar gu mag a fay am man mii maa koy waxtaan ren jii seen gàmmu kii doon def nga xam ne dëkk bi yëpp a ko doon def man mii maa def waxtaan wa te ci moom mi moo dem na ba ni ma dama laa bëgg bëgg koo xam ne yëkkati naa sama doom jox la ko addi Serigne Touba maa la ko may SDM saa boo ko xoolee mën nga ci gis ngir lan dalaa bëgg ngir Serigne nit ku baax la xoolal délégation bi mu indi tey xoolal ab kaar la gaare fii yaa ngi gis sax corne yi nga gis chauffeur bi di korne ca kaw ngir lan mbooloo mi mu indi tey tey ku xool soxna yi xool góor yàlla yi lim indi xam ne bàyyi muuru fonk na bis kon bàyyi loo góor góorlu woon doyul foo tegoon sa tànk bay boo nga yokk moo tax bu ñu lay tudd dina teral te di la tudd sëñ tubaa di la tudd di la tudd sëñ Touba di ca teral war ngaa sant yàlla bu baax xam ne ab cërëm sëñ Touba du ko jóg ñu teral la de du ko jóg wax ci sëñ tubaa du ko jóg liggéeyal sëriñ Touba kon ku ñu teral ngir sëñ tubaa baa ñu liggéey loolu ngir sëñ tubaa xam nga di am nga ab cër ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon yàlla la sëñ Touba defal tawfiq sopp sëriñ Saliou man mënumaa wax ci ñoom ndax ñoom dañuy ay gor ba ñu jàppee ba tey duñu bàyyi ay gor lañ ñu neex a àndal lañ waaye ñu fonk liggéey bi la kon ku xool lii ni mu rafetee sëñ Souley xam ni teraanga la ñu waa sopp Serigne Saliou defar Baye Modou Baye Modou warul leen a jox teraanga ñoom ñu wëlbatiku di ko jox kon séentuwuñ ci Baye Modou dara bu fekkoon ab xaalis la mën a ñoo xool fii borom xaalis bu mag ñu tuddee ko ko ñu bare ngi tuddee seen i ay boromi xaalis waaye xam nañu Baye Modou yorul ñu tuddee ko bis la ngir Serigne Touba ba bari yëkkati seen teraanga joxaat ko Baye Modou ngir Serigne Touba. kon sopp Serigne Saliou yalla ngeen yok ci barke Serigne Saliou kon lolu mo doonoon kaddu xamna xam jox ci Abdou Sakko rek wala. kaddu yi moom lépp mat na li ci dess rek moy fi nga daaneele rek la commencé moy li nga xamanteni mom la bay Modou wara def tay dañuy nan alhamdullilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin di ñaan yàlla bis bi yàlla nañ ko teewaat téeméeri at yu commencé ren te kenn bañ a manqué di sant waa daayira sopp Serigne Saliou bu baax a baax a baax ndax Baye Modou comme ni mu ko waxee ku gis lii wax na ko mais jëfe na ko ni xolam sedd na ndax man biñ ci waxtaanee mu ñëw wax ma ni nga ko tuddee tuddee bis bi dama ni ko loolu du ku nekk lañ koy defal ndax lu toll ni bisub Serigne Saliou cant Serigne Saliou ñu jël ko nii la tudde nañ ko loolu lu rëy la kon yéen waa daayira sopp Serigne Saliou ñu ngi leen di sant di leen gërëm Baye Modou tamit nee na mi ngi leen di ñaanal yàlla yéene ji ngeen am ba tuddee ko lii yàlla na leen Serigne Saliou Mbacke defal lu kawe seen jot te it liggéey bii ngeen koy liggéeyal gis na yéene ji gis na taxawaay bi lépp loo leen ci def ci ay teraanga ak ay xéewal yàlla na leen ko Serigne Saliou fulal Baye Modou daal nee na kontaan na waaye ci kontaante googu tamit comme gis nañ taxawaay bii mu doon loo xamante ni man dama ni Baye Modou ba ma waxee dama ni ko defaloo ko defalul la ko waa daayira sopp xaadim lañ ko defal ndax sànq comme ni ko kii waxee rek ndax Baye Modou Thiaw doon na nit koo xamante ni maanaam nitu ñëpp la ni mu doonee maanaam Baye Fallou sopp Serigne Saliou mii noonu la doonee Baye Fallou sopp xaadim Baye Modou amul kenn